vendredi 5 janvier 9h35 ci RFM mbégte la ñuy am saa su nekk waxtu wi di ànd ak yéen ci xalaas ci suñu journal fait divers jaajëf Aliou Ba moo nekk ci machine bi maa ngi nuyu sama waa ji Malal Diagne junior Diagne nuyu naa la bu baax a baax. maa ngi la fay Mamadou Mouhamed di la ziar di ziar Sénégal di nuyu Aliou Ba Longenza Kamimbaay. Euh, am mbégte di ànd ak yow ci xalaas saa su nekk suñu journal fait divers amit mbégte di ci ànd ak yi nga xam ne ñoo gunge ci xalaas ñu leen di remercier bu baax a baax bokk ci ñoom Infinix mi indi téléphone yu baax yi nga xam ne am ngeen ci smart 7 HD am ci smart HD Hot 40 yi wala Note 30 yi euh, wala Note 30 Infinix si téléphone yi ku ci bëgg euh, demal ci revendeur téléphone yi foo nekk ci réew mi wala nga woo leen ci 77 881 26 ñu ànd moom ci xalaas ñu koy jaajëfal bu baax a baax mooy comptoir commercial de plomberie du Sénégal ñu naan ko CCPS di fàttali waa réew mi ne showroom bu bees euh, bu mag a mag la ñu ubbi foofu ca tuba ñoom waa CCPS mi ngi héliport ci rond-point héliport bi foofu la ñu nekk lu ngeen soxla ci matériel sanitaire tuyauterie plomberie matériel irrigation bu ngeen fa duggee seen xool dina sedd 77 529 48 12 ngeen jokkoo ak ñoom CCPS wala 77 882 31 Euh, Optique Vision Plus Sénégal borom lunettes yu baax yi également ñi ngi leen di remercier bu baax a baax di wax waa Sénégal ne rek jamono ji ba léegi ñu ngi ci promotion bi nga xam ne moom lañuy def ci euh, njëgu lunettes yi accessoire lunettes yi wala lépp lu ngeen soxla rek mu jëm ci wàllu lunette bu ngeen demee ci boutique Optique Vision Plus Sénégal nekk ci réew mi di ngeen ko fa fekk euh, qualité bi gën mais également promotion bu am solo ndax njëg yi dañoo tàmbali wàññi vingt cinq pour cent ba ci cinquante pour cent ñu waxtaanee beneen partenaire di Africa Fly Tour mi indi campagne gunge gaynde yi li mu bëgg mooy ñëpp dem Côte d'Ivoire seetaani équipe nationale bu Sénégal euh, ci Coupe d'Afrique bi tax Africa Fly Tour ñëw taxaw ngir yóbbu leen delloo si leen héberger leen di leen yóbbu stade ngeen di dem ak seen hôtel mais également di leen euh, may mayo équipe nationale bu Sénégal jox leen ticket bu ngeen mën a demee seetaan match équipe nationale bu Sénégal ku bëgg a dem pour jours wala jours loo ci bëgg rek Africa Fly Tour taxaw na ngir gunge la avenue Cheikh Anta Diop promo import ñu nekk ñu ngi jàkkaarloo ak école Manguier 2 gaaw leen gaaw dem bindu ji 027 22 22 wala 33 858 77 52 savon créole également am carotte am miel am citron di saabu bu baax un savon goma un savon unisexe euh, di mën a toppatoo lool seen peau ci ni ko bëggee mi ngi ci marché bi mi ngi ci vendeur produits cosmétiques yi ku ci bëgg it mën ngaa woote ci 33 822 99 17 wala 77 516 93 49 établissement waa Kër Serigne Touba Fallé Frère la ñuy jeexale ñoo ñu indil gam bi nga xam ne moo di vite fait leen di wax ne période bi nga xam ne ngelaw li bari na poussière bi bari na bi ñëw na eh, vite fait am na ci gamme bi mouchoir de poche bu baax a baax boo xam ne qualité bu baax la ko liggéeyee neex a denc mais également dafay mën di yàgg établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère indi ci teg ci lipo ngir sedd bi crème pied wala crème mais ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ci gamme bi seen numéro téléphone mooy 77 555 11 11 wala 77 806 15 19 jaajëfal bu baax a baax ñoom partenaires yi dellu amaan mbégte dalalaat sama waa ji malal jaajëf mel na ngaa jël ci soj mi de. ah <laughs> moo tax kay boo jëlu ci soj rek baax na. a ah, ah sab bi dafa dafa lëmbee réew ah, jamono ji jaañ dégg naa ku soju rek. waa pënd wi ak complice nga. ak sedd wi tàngaay wi jaxasoo. waa waaw changement climat yi. wér fii dina jafe lool. moom kay dañu nañu ah soj de xam nga moom sénégalais yàggee na ko. Ah, waaw naan ci ngeer gi rek. waaw ak ci am solo nag. waaw ñu ci ngeer gi rek naan jëndee ko bisimilah. rahmaani rahim ak am solo ak ci am solo waaye nag comme li ñuy faral di wax rek. nit moom lu la yëngal sa yaram. Euh, barabu fajukaay mi ngi seen wet. Mm, hôpital yeeg dispensaire yeeg case de santé yi. wallaay wallaay bul waaj bul def dara boo yëgee loo sant ci sa yaram. demal seeti ko demal seeti leen. mooy dëgg ndax ñoom lañ ci mën a xam yow mënoo ko ci xam. wallaay feebar di nga ko di ko sàggane. loo xamante ne ji lu yomb ko doon faj. wallaay nga sàggane ko bu indi la complication bu bëree bëree bëri. wallaay dëgg la béy. Diagne waaw naka la. xam nga vendredi ñun dañu baaxoo ci xalaas di ay confidence. Hmm. confidence ni ma koy waxee day am ñoo xamante ne ji li ñuy dund day xibaar xalaas bu yéeme yéeme yéeme. bu doy waar a doy waar. Hmm. léegi nag euh, ngir nga mën koo jox nit ñi ñu dégg ko déggandoo ko benn yoon. Hmm. da tànn bis bu benn ne nga jox leen walla nga xam ne moom nga def confidence tey dama lay indil ñaari confidence. Hmm. Euh, ki ngay njëkk a dégg benn xale bu jigéen la boo xamante ne ji nee na dafa am seen benn mbokk. Hmm. bu leen yàq. ay mënuñoo baaxle. seen taawu famille lu mu jàpp jàpp ne bu ca góorgóorloo dana sotti bu cay génn sax du xam lu ko ciy génne. ku jóg ngir jàppale leen. ba ci ki muy wax ni am na ko bëggoon a dimbale mu tukki. Mhm. ñu nekk ci lijjanti ba au dernier moment waa ji génnaat ci. Ah, ah ah am nag nee na li ko ñi ko def seen benn mbokk la seen mbokku mu jege seen yaay lool sax. ah. Diagne déglu. sama yaay dafa am ay doom yu góor mais nag sunu borom dafa def ki nga xamante ne nii moom la ci sunu borom euh, nara dimbali day def heure bu jógee ñu gor ay tànkam. ndax bu jigéen ñu jox ay tànkam te kenn defu ko lu sama yaay ku mu bokkal koo xam ne benn la ci moom du lépp la ñu mën a wax ci xalaas mais nag su ma sañoon ñu dimbale ma ndax sama yaay dafa néew doole te sa fenn fenn fenn fenn fenn néew doole ba yàlla seera na ne doomam ji nga xam ne moo jël moo jóg takk ndiggam pour jàppale ko ñu tuddee ko tur bu baax ñu fas yéene jóg takk dëggam pour jàppale ko te mbokkum sama yaay bi bàyyiwu ko heure bu jógee rek mu di ko def yoo xam yu doy waar la sama yaay mënut a am kër mënut a am dara ndax mbokk moom nga xam ne heure bu jógee mu yàq ay doomam ñaar ñi yàq na leen ba tegu na ne ñaar ñi yàq na leen ba tegu na ne mënuñu dara dañuy tongoo ak sama yaay duñu ko tudd duñu ko taas di ko meree chaque jour sama yaay su waxee ñoom duñu ko déglu duñu ko faale duñu xëy ba nuyu ko ndax fu ñu ko xool lu ñu ne ay def-def la te ko ko def ku ko jege la doomu bu góor bi mm, sunu borom dogal moom ci boppam mu bëgg a tukki am koo xamante ne nii moo bokk ak sama yaay koo dimbali te yàlla tax bëgg koo yóbbu ma tukki kooku noonu bis ba mu ko déggee la li du sotti lii du am bis ba mu déggee lii la ne lii du sotti moom ki nga xam ne mooy yàq yàq na loola ba kooku waxatul ay waxam suñ ko waxee sax mu ne toog leen du jot yomb. waaw waxatul ay waxam nangootu see wax te jëloon na si décision mais bëgg kooku yëgee rek la lépp yàqu te ñoom ñoo bokk lépp xalaas bi may jàllale may ñaan yàlla sunu borom Mouhamed Ndiaye ngeen le ma te yàlla rek tax ci xalaas bi kii nga xamante ni meneen mbokkum sama yaay la di koy jàppale di ko dimbale pour bëgg mu tukki xale bi heure boo xam ne wax wax nañ ci moom ba yaakaar dara desul lu may dem. sunu borom def mën na lu esek mën na lu esek taw dara waralu ko dul moom ay dég-dég ndax féete na sama yaay kilifa féete na ko mag jàpp maanaam ñoo bokk lépp daal lépp lañu ñu mën a wax kon su ma sañoon ngeen jàppale lema te yàlla rek tax xalaas bii nii ngeen jàllale leen ma ko sama rakk ji bëgg na mu tekki bëgg naa sunu borom dimbali te sasul fenn amul benn weeruwaay Mouhamed Ndiaye jàllaleel ma xalaat bi amul benn wéeruwaay ma lay ñaan sama yaay moom rek laa am taman ci jigéen laa sama doole bariwul te bëgg na ma dimbali sama yaay bëgg naa ko jàppale sama rakk ji laa am bëgg ko ma ko jàppaleel bëgg ko ma ko jàppale ndax li mu yéene ci sama yaay li mu toll lépp mi ngi koy def suñu borom mi ngi koy dimbali mi rek fi mu bëgg dooleem yëgg fa ba mu bëgg a wutal yaayam kër heure boo xam ne jël na décision boobu rek ñu yàqu ko ci lu gàtt wala ku ko nar a dimbale sax ñu yàq ko may tàllal loxo rek Mouhamed Ndiaye di tàllal loxo ñi liggéey xalaas ñëpp ba ci Youssou Ndour gouvernement bàyyiwuma kenn ku mën a dimbale sama rakk ji te yàlla rek tax nga dimbaleel ma ko sama yaay wut kër bu dara te sama rakk jooju heure day def dara ñu yàq ko ba loolu te sama rakk ji xalaat dama durootul sax ni leen ñaan nga dimbali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngeen jàppaleel ma sama rak bu góor boobu mooy li may faral di wax rek jaañ léegi koy wóolooti. waaw doy na waaw bu dee ku jege ku jege. seen mbokk kay. seen mbokk yaayam moom moo def loolu. waaw xam nga am na ñu ñu indi woon fii ko yaay ji doon doon xeex doom ya. effectivement kon yaay bi leen jur moom moo. moo doon xeex doom ay doomam waaw. loolu de dund nañ ko fi. dund nañ ko fi maa ngi fàttali ko boobu. non Diagne Diagne Diagne doy na waar. doy na waar ñu dem nan dem. kii nag moom benn waay la boo xam ne moom it problème bu rëy rëy rëy rëy la am. Hmm, Badou. waa ji dafa benn xale bu jigéen bu mu amal doom. mënut hmm. a fexe ba teg bët doom ji. loolu mooy la ana ki ana ndey gone gi. ndey ji ba mu demee ci moom it li mu ko wax mooy ay at ngi gisuma suñu doom maanaam kam amal doom mbokk yi. gisuñu ko. ñoo jël doom yóbbu dem nañu ba changé këyitu doom ji dindi santu papa ji def ci santu nijaay ji. lu lu xew lu ñu toppee waa ji. xam lu ñu njëkk a déglu. Ah. ni mu xamee xamante ak xale bu jigéen bi mu amal doom. lañ njëkk a déglu loolu ba pare. ba pare soog a ñëw nag ci leneen. nan dafa am suñu benn dëkkandoo boo xamante ni ba ñu tuxalee Fass Mbao euh, quatre set set dafa am maire bu fa nekkoon sama waajur bu góor jàpp ko comme yaayam euh, par la suite sama waajur bu góor dem ba génn àdduna léegi kër maire boobu nag dafa lakk maire boobu doomam bu góor laa jël fat ko sama biir kër doomam bu góor doomu maire boobu bu góor laa jëloon def ko sama biir kër moo ak soxnaam ak ay njabootam comme man sama waajur bu góor bu jigéen ñëpp wàññeeku ne ma jël leen sama biir kër ñu nekk suñu biir kër léegi nag par la ñu dem ba mu yàgg yàlla def doomu meer boobu ku góor ko moom moo wàññeeku génn àdduna moom it léegi kon ñun ñoo fa des ak soxnaam si mu fa bàyyi ak ay njabootam man la nag ak sama mag bu góor kese ñoo nekk ci kër gi léegi yàlla def moom it sox borom këram wàcc liggéey yàlla def muy dox nag ba yàlla am ku mu ko booleel borom kër bu mu ko boolelaat kooku nag moo moo ñëw indaale doomam bu jigéen ci biir kër gi ñu nekk ci biir kër gi kooku jëlaat femme bi moo ñëw indaale doomam bu jigéen moom it soxnaam dafa wàññeeku woon dëkk ba mu ñëw Dakar nekk fi far yàlla boole kook suñu jigéen boobu ñu nekkaloon suñu jigéen boobu nga xamante ni kër moo laqoon ba ñaari doomam gaañu ci dafa amaat borom kër borom kër googu moom moo ñëw indaale doomam bu jigéen ba mu indaale doomam bu jigéen léegi ci la toog ay quelque temps yàgg ay lu mat ay cinq ans xaw ma man it sama waajur bu góor raqam bu mu bokkal ndey ak baay moo jógee Mauritanie ñëw def sama kër un an et demi ba muy ba muy préparé nag ne ma comme Dakar dafa xaaw a jaxasoo munuma la fi bàyyi yow kese yoro soxna yoro dara sa mag moom euh, yàlla dimbali na ko am na soxna kooku moo am problème mais yow munuma la bàyyi Dakar nga nekk fi yoroo soxna yoro dara c'est un risque. ah yàlla def muy dox nag ba yàlla boole ko ndaw si xale bu jigéen bi ñuy wax nag ba yala def. Euh, déggoowuñ ci moog waajuram waajuru xale bu jigéen bi yàlla def ma amak ak xale bu jigéen bi doom ba ma amee moom doom léegi nag yàlla def euh, doom ji dem euh, yaayam di ñibbi kajoor yóbbaale ko man it dama daan dem foofu ay gàmmoog affaire yooyu léeg-léeg ma dem fa xool xale bi ñu ñënteeg moom affaire yooyu toog bañ demee nag laa ne xaar ma dem ma ma dem jéggulu ji jënd sama guro jënd sama ki tàngal affaire yooyu jëndal sama doom nécessaire ay gaam ak jiréeg lépp yóbbu ba ma àggee sukku jéggulu ci parent magu papaay xale bu jigéen beeg yooyu yëpp ma nuyoo leen baalu leen ak paa bi ne ma carrément affaire jënd ay yéreeg affaire yooyu moom dañ koy bañ caaro yi dañ koy bañ fii léegi nag yow personnellement sa doom a ngi fi saa yoo ko soxlaa nga ñëw jël mu ngi fi man it ma jàpp ci waxi kilifa googu rek comme sama euh, xale bi ma amaloon doom comme jigéen boo amee moom doom xam nga yenn doom yi pour nga ñoom seen foor it ñoo mooy ñu xaaw a jege seen seen seen seen doom tuuti ma bàyyi xale bu jigéen bi foofu ak yaayam mais teewul damay dégganteeg moom maa ngi ay photo vidéo tout lépp maa ngi moom. léegi nag yàlla def na ñu dem ba toll fii nii ma ne léegi chaque jour damay nem si kii ko yore fa Diop la tudd moom waaw man moom laa xamee woon ni sax ni moom moo yor xale ba mu feree ak lépp mooy moom moo ma woo téléphone dama expliqué léegi nag man dama demoon pour ne dama koy récupérer même bu dee un mois parce que da ngay dégg xalaas da ngay dégg ci yi ci rajo yi média yi téléphone yi tout le temps ñu naan euh, damay wër sama yaay damay wër sama papa man it ma ne pourquoi pas comme man maa ngi dund maa ngi def lépp war naa mën a récupérer sama doom mu xam sama kër xam ay doom baayam xam ay samay famille affaire yooyu mais daal ba ma jógee pour récupérer xale bi même mu def sama kër même bu dee un mois un mois mënuma ci jot. xalaas. nga foofu la yem. dem di ko jëli ñu ne ko mënoo cee jot. mënoo jot te wax ko baal na sa doom bu bëggee ñëw moom mën nga ñëw xool sa doom. waaw léegi nag li indi mënoo cee jot ji. waaw moom la lay expliquer nag ci deuxième partie bi. déglu. ma def lu nekk yónni sama mag Touba mu dem Touba ñu jël ko nëbb ko ba mu jógee foofu après mu dem ñu rawale ko yóbbu ko Kajoor man ma dem ba ci yaayam xale bu jigéen bi dem ci yaayam sama doom bi ma dem ci yaayam expliquer ko yaay ji xamal ma ni carrément man mii di wax ak yow deux ans ngi nii gisuma sama doom dégguma ko téléphone yaayam si wàllu boppam mu taxaw ne ma carrément avoué ni man deux ans ngi nii man gisuma sama doom dégguma ko téléphone ma ne ko loolu nu mën a demee mu ne ma ah lii daal laal la mën a wax yow daal demal nga naxtaananteeg a ah mardi la ma ko wax mercredi ma toog noppaleku jeudi ma ànd sama mag dem ba ma àggee ma toog waa famille bi ñëpp toog ma wax ak taan ak ñoom ndijaayam ak fam bi ko yoroon Touba yaayam ñoo ne ma carrément xale bi du fi jóge ma ne ah ñu ne ma carrément xale bi du fi jóge ah léegi nag sama mémoire man it ma dawal sama mémoire kon lu ñuy def yaayam kon foofu la ñuy mujjee ak man comme yaayam maa ngi soogay comprendre dañ ko kidnappé ci sama ci doomam. ah man it ma ne sama mag bi kaa ñu ñibbi ma ma jógee ma dem Thiès tribunalu Thiès laa dem ci lënd bi ma dem tribunalu Thiès ma def sama convocation pour ñu dem ci yoon ñu wax sama doom du fa jógee fan lañ ko teg waaw ma demee ñu ne ma. Louga la ñu bindal ma convocation ne Louga la ma dem Louga ñu ne ma carrément Kébémer la ma dem Kébémer ñu ne ma léegi président bi signé affaire yooyu nekk fi demal ba lundi prochain demal après dinañ la woo la ma wax ma dem ñibbi ba ma dugaat oto delluwaat ba ma delluwaatee ñu ñëw ñu bindal ma convocation ne ma suba suba suba plainte ne ma suba suba ngeen di ñëw wuy si ma yóbbu ko plainte bi suba ma delluwaat dem ba ma àggee ñu xamal ma ni carrément xale bi comme day jàng bàyyi ko fa waaw bàyyi ko fa mu jàng ma ne ah loolu mënul nekk man sama doom day jàng te man maa ngi kayitu juddam nijaayam ne ma carrément nag man de ma maa la laaj kayitu nga bañ ma defaral xale bi kayitu juddu ma ne ah man lii lu mu mën a nekkee man nijaayam duñu wax depuis ba ko yaayam ëmbee ba léegi man ak moom séq duñu wax wallahul azim boobu sax laa ko gëj gis ba keroog ba ma fay tegaat sama taal. Ah, léegi nag ma dem wax ak waaji waaji ne ma carrément il faut nga bàyyi ko fa ba mu ba mu jàng ba pare. ah ma ne nag il faut que ma woote ndimbal il faut ma sàkku ndimbal parce que tamit xëy na. man li ma xamoon ak li ma gis ça fait deux dañ ma fa jiitu xaw ma dañ ma gën a xam foofu xaw ma quest man loolu mënul nekk te xale bi il y a de seize ans te waa nijaayam avoué na ma ni carrément defaral na ko kayit xale bi mu ngi jàng te man kayit juddoom laa yor waaw këyitu juddo bu mu génnee hôpital laa yor man waaw man lool moo ma ci jaaxal na moo tax ma ne nag il faut ma daw wuti wàllu waaw comme dem naa ci yoon ñu indil ma ay problème il faut que ma dem ci utu wàllu nag nga ne naa la problème a noonu. waaw lu man li ma jaaxal mooy ke defar kayit judd beneen ba fu mu ko fu mu jëlee kayit yi. ak lu tax yoon bàyyi ko mu jàll. waaw. xam nga problème bi mooy euh, xëy na liñ ko wax sax xel mën na koo nangu mooy day jàng. Mm, waaw te jigéen la waaw. bàyyi ko ak mais nag bàyyi ko ak yaayam. bàyyi ko ak yaayam bu vacances jotee nga jël sa doom vacances ak moom bi mooy nag xale bi daa nekkul ci yaayam sax. déggoo nee na bi mu laajee fu doom nekk dana ko deux ngi man teguma ko bët. ça veut xale bi nekkul ci papaam te papaam soxla na ko. nekkul ci yaayam nekkul ci yaayam. yaayam mi ngi dund bàyyi mi ngi dund. kon feneen fu mu dem ci ay jàmbur la nekk. waaw waaw ñu loolu dèjà lu ñu war a lijjanti la yarluwaan la fi mu toll nii waaw dem ndeyam ak bàyyam a ngi dund même bu fekkee yaay ji mënu ko yor bàyyam bëgg na ko yor papa ji soxla na ko waaw nañ ko jox bàyyam dañ ko war a jox waaw ñaareel ba mooy ki dem wutal ko këyit nan la nan la def am këyit def na déli kooku waaw kooku déli ba moom jugement la waaw waaw parce que pour nga déclarer gosse il faut nga am acte de kii certificat de naissance waaw te fu mu juddoo waaw am carte d'identité ndeyam ak carte d'identité bàyyam wala mhm. loolu mooy yoon bu normal mooy yoon bu normal mbaa mu dem kàcc moom moo jur gone gi ak ci turu turu ndeyam def def ko ca. xam nga loolu waru koon bàyyi mu lu même bu dee sax am na complicité ndax ka defar acte de naissance ba. Mhm. de ba faux ak usage de faux mooy feeñ foofu. parce que beneen ak ndeyam noonu noo dem jur seen doom defal déclaration. beneen bu bàyyi def comme ñu janax bu jan booy dàq ay kaña. Mhm. kaña gi njëkk noo koy wax kañaa ngi nii. nga mhm. topp looy wax. jeneen a mu léegi nag problème bi mooy. waaw xale bi commencé naa jàng ci këyit yi ñu ko defal. te fekk am nay këyiti boppam. yàqu na benn nit. war a am ñaari. extrait bulletin de yu bokkul. loolu day jur coow loolu mën na ko indil ay moo tax lu ñu war a lijjanti la. benn bi hmm. sopp mooy euh, li am am na mook ndaw si am nañ doom yàlla ko tuddoon. ñoom ñu ngi déggante ñoom ñaar ñi am doom. ñu seq mbir mi déggu ma la dem na ba ci. seq nañu jàmm waaw. dem na ba ci moom laaj ko mu ne ko man deux ans ngi xaw ma sama gisuma sama doom. Ah. nañ jël xale bi jox ko papaam. dëgg dëgg parce que bu ko yaay ji mënut a yor. bàyyi mun na koo yor bàyyi papaam la. bu fekkente ne papaam nekk fi yaayam nekk fi nag ñu soog a mën a jël di dénk ay nijaay ak ay bàjjan ak ay yeneen ñu ni mel. mais doomam ji nañ ko ko delloo jaañ. waaw dem na ca yoon nee na. Hmm. waaw dem na ci yoon mais yoon li ñu mooy xale bi day jàng bàyyi kook ñoom. waaw waaye yoon dafa war a yeggali dogal ba doom ji dafay jàng dëgg la bàyyi kook ñoom waaye bu lekkool tëjee mbaa feet am mun ngaa gis sa doom bu dee it am na ay weekend prolongé ak yooyu mu nga gis doom waaye bakook ñoom rek toog noonu doo gis sa doom. mais est-ce que sax doom am na keneen ku ci gën a yeey papaam wala yaayam. dëgg-dëgg même buy jàng sax naa mënees ko mënees ko transféré. waaw loolu it war waras na ko li. buy jàng sax mënees ko transféré ca fa mu ne teg ko ci wetu baay bi mu mu mu jàng ci wetu baay baayam di ko seet. di ko xool dégg nga nee na xale bi am na 16 ans. ba 16 ans doontul xale 16 ans jànq la. ah doontul xale de donc lu ñuy lijjanti moom war nañ cee gaaw. Diagne ah. maa ngi lay gërëm baal ci nag jàmm. yëf yi kii na buur na. Ah, waaw jeex na kon nañ dem déggu. jërëjëf jërëjëf. حن ايام بالظلم يا كان